maa ngi sant na naa la mais naa la. ni ma la rawee ko raw. yaa jàmm. maa ngi nii. mais sinon yaa ngi koy yëg. waaw maa ngi koy yëg. mi ngi lay dal. waaw bu baax. yaa ngi koy dund. waaw xanaa ñëw ci concert bi rek. Hmm. mais tamit xam nga des fois da ngay lu la métti faa nga wax ko. sécurité yi nañ dimbale nit ñi te yàlla daal respecté journaliste yi du dëgg. mais da di ñëw ñu leen di téye ñu nag ñoom ñoo far. nañ bàyyi seen yi ñuy def. métti na tam nga waa secte bu sañoon bu tëggee ñëpp dañuy ñëw. ñëpp mais ñoom li ñuy wax rek buuru aayut ñu te yàlla tax ngeen jox ñu te respecté ñu dañoo sonn waay dañuy liggéey dañuy liggéey waaw nañ waxante dëgg da ngay ñëw ñu lay téye ci ay bunt du yoon c'est pas normal ñun homme de tenue sax duñu téye mais da waali bu xewlee nit ñi dañuy sonn man maa ko wax man Paul bu rafet te daw ma ci okkin maa ko fël-fëlaale sànneeku pël lan fël-fëlaale waaw man du ci mën a wax nga du ma ci mën a wax ah. ndax pël bu rafet fu mu nekk day rëtatoo karkaraatoo sàjj ah. nga utiliser lañ bëgg nga tekkil ko faram fàccee ko mbokk yi di déglu tey seetaan xam nga yëfu xale la rek naa la rek gars yi di fël-fëlaale karkaraatoo sàjj ba mi moom loolu dara day neexal jotaay rek ah. dëgg waaw pël bu rafet kontaan nañ ci yow yow fii la ëppee ñoo faat yàlla na baat bi wér yow da ngaa gën riis ñàkki ñaan kenn du yow sama xarit bi nee naa la ci sa biir émission laa lay takkal ñëw andi la wóyal yee laa xanaa neex